débat d'orientation budgétaire ci pour deux mille 2024 incha allah donc conseil bu ne am na droit di euh, di ñëw ci conseil bi di joxe xalaatam bu ko defee ñu mën ko jël en compte parce que xëy na lu bari duñu ko mën a xam mais conseil yi am nañu rôle boobu di ñu mën a conseil di ñu mën a wax tel problème tel zone telle localité euh, yu mel noonu quoi ci domaine yëpp nag waaw ci domaine compétence yëpp c'est vrai que li ñuy jox ci compétence moom bari na juróom-ñeent euh, domaine de compétence la mais ñaare yi ci ëpp solo sax daanaka yi fi ñuy intervenir mooy sante mbirum wër gu yaram mbirum njàngale mi euh, mbirum xale yi mbirum sport c'est vrai que li ñu bëgg a def lépp mënaguñ ko def maanaam si si suñu ambition loolu li ko waral mooy manque manque manque manque moyens yi mais mooy aussi dañ koy wuti euh, ci gouvernement ak ak feneen ak feneen ak feneen mais li nga xam ne daal moom la ñu yor daal. fas nañ ko yéen a dugal moom fu ñëpp xam fu ñëpp di gis maanaam la waxoon rek day leen laaj la luñ man luñ man di xam. waaw day leen laaj lu nit ñi man day leen laaj day laaj nit ñi luñ man te di ko dugal fu ñu xam loolu moom mooy principe gouvernance boo xam ne ni moom macha allah. ah, ah non mais loolu jiit na Touba kanam nag. loolu loolu na Touba ci kanam loolu. Serigne Cheikh Gaynde Fatma mooy mu waxoon loolu ci maanaam liggéeyu daayira la woon liggéeyu daayira bi ñuy liggéey daayira mu leen de leen ak nit ñi li man te di ko dugal fu ñu xam loolu mooy principe bon gouvernance loolu nag foofu lañu bëgg a jëm ñu nit euh, te man li ñuy jox daal incha allah danañ ko dugal fi nga xam ne priorité la ci département bi jàpp nañu santé nag wax di yàlla ak njàngale mi ay priorité la ndax bal nga wax développement tamit da nga wax mbirum wér yaram da wax aussi mbirum njàng waaw daara yi yëpp ci lañ bokk moom moom koy lépp lépp lépp xam nga maanaam mbirum maanaam développement moom daa yaatu daa yaatu développement daa yaatu lépp ngi ci biir waaye nag nañuy toujours nag fu mën a cibler suñuy action donc euh, yi li ñu am daal mu néew ko bari danañ ko dugal fu ñëpp xam foo xam ne ñëpp dañ fa mën a jariñu tamit kon nag préfet maa ngi lay sant bu baax tamit vraiment sa disponibilité say cons parce que yow suñu conseil nga suñu encadré nga Euh, suñu partenaire nga ndax ñun aussi tamit ci état lañ bokk état la maanaam collectivité locale du du ci état la bokk ab la bànqaas la ci nguur man suñu ma def lu ma neex def mënut a nekk parce que je suis vraiment encadré par des procédures par un code euh, code du code bi code bi dama ciy veillé préfet da ciy veillé trésor da ciy veillé ñeneen dañ ciy veillé yéen sax da ngeen veillé ci man code bi code bi ñëpp ko am loolu ñu tënk nag ñu fas yéene ñun ñëpp euh, ci sukkandiku li ci jaar di ko gën a améliorer dafa leen gi mais li am solo daal principe mooy développement moo ñu moo moo ñu intéressé politique intéressé wu politique moom defoon nañ ko ba ma maanaam ba ñu wut kenn ba ngaa def politique ba am ba nekk conseil mais nag bu fi nekkee nag ñëpp lañu fi nekk askan nekk luñu parti de ñi nekk luñu parti ñëpp luñu maanaam nañ fi nekkal askan ñu fi nekk kenn ku ne am nga droit ñoom joxe sa xalaat ci ni ko war a posé lañ ci mën a def dañ ci man a intervenir intervenir donc loolu daal mooy liggéey bi di invité encore tous les conseillers ñuy gën a rapproché bu baax conseil départemental xam ne liggéey am solo yi fi xaw yoo xam ne ni am nañu maan administration parce que liggéey bi yëmul rek ci vote budget am na administration bi fonctionné am na secrétaire général am na chef de service yu nekk ci département waaw yu bëri dañuy intervenir ci maanaam ci domaine de donc ku bëggee xam dara rek boo ñëwee dañu mën a jox information yi waaye nag ah, mën na ñama xam rek toog seen kër rek <laughs> ah, bu ñëwee rek daan ne waaw man xamuñ affaire bi dara ah loolu tamit xam nga <laughs> voilà kon daal ñu ngi leen sant bu baax di vraiment lever siam bi di sant vraiment chef de service yëpp comme ni ko préfet xañul bi danañ gën a liggéey yéen